boobu dama dama yàlla dafa def yàlla dafa def sax léegi léegi parce que fa gaar gaare woon suma oto bi may ñëw parce que principal soriwul bi ñu def levée du corps bi maa ngi xool chantier yi mais j'ai comme l'impression que li taxoon sax ñuy précipité euh, amul amul amul fi mu toll nii te on sera pas dans les délais pour livrer oh c'est-à-dire histoire Dantec c'est histoire bu juddu ci magistère président Macky Sall déedéet gis nga problème mu suuf yooyu dama lay wax rek xam nga dëkk c'est-à-dire attaque attaqué attaqué mais duñu xam sax l'histoire c'est-à-dire dafa am ñoo xam ne tey si ils sont au Sénégal je l'ai dit toujours régime bu ñëw nag ñu ànd ak moom ça la vérité c'est-à-dire c'est des groupes d'intérêt yoo xam ne mm-hmm. ils savent comment gérer à tous les niveaux nag mm-hmm. am nañ fi seen i nit ñooy créer seen i réseau teg te ku nekk xam ne ni zone boobu zone la boo xam ne suuf si non seulement cher na mais suuf bu baax la c'est des zones préférées et les gens ne voudraient pas ils ont toujours voulu c'était au temps même Mmh. oui oui ils ont parlé non non mais xam nga ñun comme ay sénégalais lan lu ñuy préparé xam nañ ils ont voulu en premier lieu essayer de délocaliser certains service xam nga tëj nañ fi maternité Dantec pendant treize ans mmh. xam nga Dantec mooy maternité bi gën a ngand fii Sénégal mmh. tous les grands professeurs fa la ñu nekk ñu tëj ko pendant treize ans di ne dañ koy réfectionner comme koy réfectionner lit mbir mënoo ko tëj pendant treize ans c'est pas possible. donc l'objectif visé parce que il fallait délocaliser ñenn ñi yóbbu leen Baudouin ñeen ñi yóbbu leen institut polyclinique IHS. léegi boo demee ba tàmm foofu léegi mën nañ xëy benn jour rek raser parce que tàmm ngeen liggéey foofu. Mhm. ñu jëlaat yeneen service boo demee tey hôpital Fann ORL bi nekkoon foofu fa lañ ko délocaliser. lay nekk dañ ko bàyyi woon mu delaar ku nekk xamoon na lay nekk ak passion foo ko mës a dégg boo fa amee malade bu hospitalisé yow sa wàllu bopp sax doo nekk à l'aise mhm. on essaie des des conditions de dégradation. pour pousser à la limite on dit que maintenant il y a problème d'insécurité ah. bi après foofu la nekk parce que nga di gisoon ngeen même les blocs muy sointeeg loolu lépp parce que nous on travaille dans ces structures on que amatul sécurité pour malade mm -hmm. finalement bu conditions yooyu réunir ñu ne ah fii de sécurité amatu nañ ko tëj bu ñu tëjee ñu toog stade Demba Diop di gis nga fi tëj nañ ko fi depuis match Wakaam kii ba waaw pourquoi boobu ba tey rek <laughs> moo tax ma ni la c'est des yoo xam ne foofu la nekk bi ñu demee nag heureusement que les très tôt ont compris yeneen services bi ñu leen buulee bëggee délocaliser les gens ont refusé. Mhm. ils ont dit vous avez des moyens réfectionner les services. ci lañ commencé réfectionner yenn service ba Dantec commencé waat doxaat. Mhm. mais xam nga li naan naan euh, suñu benn doyen daf ñu doon wax naan ñu saay-saay du summi du summi tubayam ngeen baal ma ci wax ji. Mhm. day day yolomal géño bi heure boo tourné rek mu takkaat ko ba mu dëgër. Mhm. et les la je pense que c'est les mêmes groupes qui sont revenus sous quelle forme nag noonu la dem